alhamdulilah xam nga Cheikh Abdou bi man. man dama gëm démocratie mais it man tamit damaa am tolerance parce que démocratie buñ ci nekkee. kenn ku ci ne am nga droit nga nga wax sa xalaat mais nga argumenté ko mais fexeel ba boo ko tegee ci penc mi waa penc mi duñ la xeeb. yaa ngi dégg man awma problème mu nit def ci man attaque parce que toujours nit toog ci réew mi. yëkkati benn xalaat d'accorduma ci ma génn ni ko d'accorduma ci waaye boo seetloo foofu laa yem du ma dugg yow ci sa vie privée wala ma lay def ay attaques yoo xam ne ay attaques direct la yoo xam ne teguwul fenn. Mm-hmm. parce que ñun it lu suñ position ñëpp xam nañ ko waaye nag dañuy am lu ñuy sóoraale mooy dañ ay jàngalekat lañ ay ay yarkat lañ te ñi ñuy yar comme dañ ñuy seetaan am na foo xam ne bëgguñu fa àgg waaye nag du tere. wax tamit ku ko dégg xam la ca yenu maana ak la ca yenuwul maana man leer na man ni Maître El Hadji Diouf xamuma xamuma su ma xamoon du attaque xamuma ci benn mooy xamul ni man dama yor entreprise di liggéey yaa ngi dégg parce que man yor du daara laa yor man institut laa yor damay jàngale sama école français dafa jàngale al alquran enseignement général la laay def hmm. directeur école la yaa ngi dégg. Mhm. te école boobu dërëmu état demu ci. ñun ñoo def suñuy pexe ba teg ko tey di fa employé ay sénégalais ñu fay liggéey ñu leen di fey mhm. kon bu nee chômeur la bu defoon tuuti gëstu rek dina xam ni li mu wax day fen hmm. waaw il fen fen moom fen rek la mën a tudd. Hmm. te fen li tax mu bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ni ko ndax jullit dina njaaloo mu ne ah njaalo de bàkkaar la jullit de bu ko yàlla nattoo mën na koo def mhm. donte baaxul waaye bu ko yàlla nattoo mën na koo def ñu ne ko ndax jullit dina sàcc mu ne ah sàcc bàkkaar la de jullit bu ko yàlla nattoo mën naa sàcc ñu ne ko ndax jullit dina fen mu ni al mu'minu la yakzib mhm. jullit du fen kon li mu wax ni ñu imaam Dramé chômeur la il ment day fen man du ma chômeur <laughs> yaa ngi dégg. Hmm. loolu benn point la ñaareel bi yonent bi salaay salaam dafa wax xadis bu am solo dani charru naasi zul wajhayni mu ni ki yées ci nit ñi ki gën a bon ci xeet wi ki gën a bon ci nit ñi mooy ki am ñaari xar kanam li ngeen tuddee duubul face mooy koo xam ne bu subaa mu défendre lii boo toogaatee tuuti dégg ko mu défendre lee. ñenn ñi di leen woowee naa fekk. waaw non kooku naa fekk sax ko gën. Hmm. xam nga ki yées ci nit ñi. gis nga mu ni zul wajhayni ki am ñaari xar kanam. xam nga tey sénégalais yëpp nangu nañ ni El Hadj mi comédien la. nangu nañ ni amul crédibilité. nangu nañ ni tamit lii muy défendre nii tey yaa ngi dégg bu subaa mën naa taxaw. d'accord ci te Imam Dramé mënul loolu xam nga li ma wax kon critères yi nga xam ne yonent bi saai sallam daf ci caricaturer yonent bi moo ci caricaturer nit mhm. ni critères yi fu ngeen ko gis ci nit jàpp leen ne nitu safara la critères yooyu yëpp dafa daje ci maître El Hadj Diouf hmm, ah, ah man bàyyil rek ma leeral ëpp na de wallaahi man du ma rusa fen yonent bi ko wax yonent bi nee na jullit du fen te moom nee naa la fen na parce que nee na man chômeur laa te man du ma chômeur hmm. kon day fen yéen tubee ko wax yaa ngi dégg ñaareel ba nee man trian laa moo ko wax ci vidéo bi boo ko dégloo man kan moo mës génne ci réew mi kuñ ne Imam Dramé trian de na la yaa ngi dégg kon loolu ma daaneel c'est important kon fi ma fi ma li may wax ni du mer du ma du waxuma waxi ku mer lu logique laa yàq mais est-ce que du subir géopolitique beeg débat politique bi man man mus naka jekk mosuma koo attaqué ni ko dangay ngay fen wala triangle musuma àgg ak moom foofu d'accord ma ak moom nag position te fa te fi ma ko teg dinaa ko wax mhm. yaa ngi dégg li tax d'accord ma moom parce que Me El Hadji réew mi dafa am koo xam ne réew mi ñëpp ko naw muy kilifa ci réew mi ñëpp jox ko cër muy sëriñ Muntaxa bi coowal dossier bi jógee kan moo ci njëkk a wax sëñ Muntaxa moo jóg daal ni coow loolu nañ ko teg ci suuf sëñ Muntaxa même bu dee yéefar nga bu la ñaanee da koy may parce que Sénégal noonu la tëddee Maître El Hadj Diouf moo njëkk génn défier sëñ Muntaxa bu ngeen seetloo te li may wax nii na ngeen ko xool mu ngi ci média yi yaa ngi dégg parce que man dama gëm ni dugg na ci ci xeex boo xam ni kim amal affaire xamu moom bu ma xamoon du ma tudd sëñ Maître El dafa génn défier sëñ Muntaxa publiquement ci naka waa défier bi mooy wane ni sëñ Muntaxa lu wax dañ nañ ko teg ci suuf yónni yónni rakkam opposition bi liñ jàppoon yëpp ñu teg ko mais El Hadj Diouf bi mu njëkk a def bi mu génnee dane Sonko dafa violé dañ ko war a jàpp kon kay défier na sëñ Mountakha. mais est-ce que justice moo si jiitu bu dee noonu la déedéet affaire baa ngi ci justice de dossier bi moom bu doon murit la. Mm-hmm. ku gëm gi muy woote ni gëm na Serigne Touba. ki fi nekkal Serigne Touba di sëñ Mountakha taxaw publiquement ñaan opposition bi ñu may ko. Mm-hmm. moom même bu doon murit la ca saasa day teg mbir mi ci suuf daan ni man kat ki ki ma ñaan kum ñaan nga may ko mais daf ko défier yaa ngi dégg léegi nag moom jàpp na ni woon maanaam jàpp na otage nit ñi bu ko neexee li muy wax sëñ Baara kooku sëñ Baara affaire am la Cheikh Omar Diagne xëy na mu ngi ci mën mënut a tontu waaye man man amul dara fu mu war a mën a teg ba di ma attaqué ah ak lu mu war a yaakaar ba di ma attaqué. Hmm. man yaakaar naa lu ko ëpp foofu pour man ko attaqué yaa ngi dégg bu dee judd ci la ko teg bi dama attaqué gënuma judd bu dem njàng billaahi ëpp may diplôme bu ko neexee mu génne CVM ñu teg hmm. yaa ngi dégg bu dee réew mi barke Cheikhou Tidiane maa ko gën a bëgg réew mi parce que man réew mi sama bëgg ko seedeelu ma ko kenn yàlla laa koy seedeel mais ku bëgg gis ku bëgg gis nit kuy dem safara hmm. nit koo xam ni boo gisee ni kii day dem safara xootal xoolal Maître El Hadji Diouf parce que critères yi yonent bi wax nii yëpp ni critères yi day daje ci nit pour mu dem safara daje na ci Maître El Hadji Diouf mooy mooy ki yées ci nit ñi la yonent bi wax charru naasi zul wajhayni ki am ñaari xar kanam mooy Maître El jouf bi moo fi doon attaqué Macky Sall daan ni Macky Sall moom xaalisam moom moo war njëkk a taxaw wax ñu fu mu ko jële mais justement c'est important sëñ Saliou Gueye wax na ko ko ci émission bi mm-hmm. mu ni ko génneel preuve sëñ Saliou koy génne preuve yi nangu wu cee wax yaa ngi dégg. Hmm. kon tey maître El Hadj bii tey moo nekkaat avocat état bi pour ñu jàpp Karim Wade même maître El Hadj moo nekkaat avocat wu Adji nga xam ni amul benn avocat bu crédible ci réew mi bu gëm moral ak éthique bu am fitu jël dossier bi. mook Abdou Dialy Kane ñoo ko seq de. mais Abdou Dialy Kane ñëpp xam nañ ni jël na dossier bi waaye kenn dégg ko ci muy wax wax ju ñaaw kenn dégg ko muy xas imaam yi di xas gor ñi. Mhm. moom ci lan la war a toog ba ñuy xas ñun. daf ñoo gën a dëkk ci réew mi parce que maa ngi lancé un appel solennel. Mhm. Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk. di wax ni man lépp lu ma lu ma loo xam ne ni sama wàllu santé walla sama sécurité laal na xam nga kan mooy responsable. Hmm. régime bi fi nekk ñooy responsable. waaw ah, loo tax wax loolu. waaw man dama dama dama koy wax. parce que hmm. man magum xamoon magum waxoon naa ko la doo magum xamoon naa ko parce que nguur ñaar moo fi nekk nguur dañ lay xupp dañ lay xëpp dañ lay xëpp boo bañee xëpp bi ñu xupp la te fi ne ci xupp ñu lañ toll. parce que man kenn mënu maa xëpp kenn mënu maa jox lu ma yorul yaa ngi dégg. léegi fi ñu toll mooy jéem xub man dèjà nii rek sama kër sama daara ji. Mm-hmm. man ba ñu ma topp ma parce que renseignement yi seen liggéey la ñuy def parce que man defuma dara lu luwaa di bañ ba bañ ko ma topp yaa ngi dégg parce que koo dégg mu naan man ba damay ba man ba ñu ma topp ma am nañ ci droit ñoom dañ leen a fay pour ñu topp nit ñi pour xam waaye nañ li may bañ mooy ku ma tuumaal ëllëg parce que bu ñu la bëggee noppiloo mënuñu laa noppiloo dañuy defi pexe pour tuumaal la mm-hmm. yaa ngi dégg te loolu maa ngi ci alerte sénégalais yi ak kilifa diine yi di wax ak ku mel ni Serigne Mountakha Mbacké nga xam ne sama waajur la sama kilifa la Serigne Babacar Sy Mansour sama waajur la sama kilifa la di wax ak sama kilifa Serigne Maam Abdou Dramé mm-hmm. di wax ni man dugguma ci benn lobby yaa ngi dégg yoruma lu ñuy tere yaa ngi dégg defuma dara lu loi di bañ li may bañ rek mooy ku jaay sama réew. mais au-delà de c'est important li may bañ rek mooy ku jaay nit doole. Hmm. parce que dossier bi man position bi ma ci am bu asamaan si daanuwul duma ko wàcc te ñoom bu ñu la jéemee buñ Cheikh Omar Diagne ngi dañ ko jaay doole xëy tuumaal ko mën nañoo xëy tuumaal ma léegi yaa ngi dégg mais nañ xam ni man mënumaa tuumaal ci dara réew mi ñëpp nangu nañ ni ñii fi nekk gënuñu maa bëgg réew mi bu dee Me El nag. moom buñ toogee man ak moom ñu dajee li alxuraan di wax makkaanan siwan mooy terrain neutre yaa ngi dégg bu ma waxee mu jo moom mu wax sénégalais yi dinañ xam ni moom fenkat la hmm. waaw yaa ngi dégg kon réew mi il faut ñu respectante d'accord mais toog ci sa plateau naan imam trian la moom na génne fan laa fan laa ko mos a triandé d'accord man du ma xam nga man du ma politiciens yi nga xam dañuy ragal ay naan hmm. du ma ko tontu xam nga moom comédien la ko ñëpp jàppee ba duñ ko tontu réew mi ko wax mun la comédien la Sénégal yu bari bu ñu seetaan Me El Hadji dañ koy seetaan pour divertiru nii rek pour hmm. buñ dogoo ba pare toog di ko seetaan pour wàcc seen stress mais Sénégal yëpp xam nañ ni li muy défendre gor du ko défendre waaye nag na ma fi bàyyi te su ma xamoon du ma attaqué d' accord ah. d' je pense que réponse bi. Ah. Euh, daanaka xaw na sax xaw na sax ëpp tuuti. au contraire sax man defaguma dara. seen TV am naa fa droit de réponse d' accord bu ko neexee nañu invité ñu dajee xola ñu invité média Sénégal yëpp ñu toog yaa ngi dégg sujet bu ko neex na ko tànn ñu wax ci maa ko gën a maîtriser avec modestie. Hmm. diine du ci duñ ci wax parce que xamu ko yaa ngi dégg parce que bu amoon diine wala mu xam dara tuuti ci diine. yaa ngi dégg du toog ci palaato yi di tuumaal as gor te li muy wax yëpp day fen mag nag bu amee sutura moo ko may boppam yaa ngi dégg hmm. te fépp fu ma woo man pare naa pour wuy ji ko parce que man ëpp ma ay mbokk ci réew mi hmm. gënumaa dëkk ci réew mi man ku ma ku ma mën a ku ma mën a xoqtal dafa yeewoowul ci réew mi hmm, d'accord parce que domaine boo ci jël bu dee ay mbokk ëppoo ma ko yaa ngi dégg man nga maa jaay doole na comme ni nga jaayee ñëpp doole kompaloo ma ñu ni kii nangam nangam xam nga wax bu boobaa it pare nañ pour assumer loolu parce que ñun ragaluñu loolu li gaa booy yi di wax. Mm-hmm. bu dee kaso lañ ñuy xoqatale ñun ragaluñu kaso. Mm-hmm. combat bii ñu nekk liñ ci gëm mooy man damay defendre Ousmane Sonko xam nga lu tax ma koy défendre du jëmmam ji yonent bi moo ko défendre. sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. yonent bi moo wax ne képp ku tuumaal nit njaaloo te amoo ci preuve indiwoo ay seede nañ la caw. El Hadj Diouf yow yonent bi moo la caw man cawuma la man damaa nettali rek li yonent bi wax bu doon ci réew mu sérieux lañ nekk wala ci réew moo xam état islamique la yow caw nañ la bu yàgg yàgg képp koo àndal lii mooy l'islam